waa dafa am coow li ci Guy Marius Sagna ñu naan El Hadji ko war a dóor bal mu dee comme ça rek mel ni dama dëgg wax loolu quoi dama ni Guy Marius Sagna dafa dafa rëcc ndax fam demoon di xëccoo barrière giri yi pale ku ko def yoon moo ni militaire dañuy dóor bal ndax yoon moo ni palais présidentiel camp militaire la moo tax garde rouge yi taxaw ci bunt bi xonk cur muy danger nga ñëw songu danger boobu ñuy xëccante gi xëccanteeg ñoom mën nañu la bal te bu ñu la bal bu ñu la dara du ci dikk loolu laa wax ma ne ko Guy Marius Sagna li mu def dafa garaaw moom day saar xamu ko xam nga ñàkk xam li waral bëri na moo tax ma moom mu moom mënu na ci sax jëlee dee ndax songu pale mooy mooy xaru songu pale ak camp militaire xaru la mooy boo dañuy dóor bal nga dee loolu laa wax néew ma moom dañ ko rey de dama ne mënoon nañ koo rey ci loolu bu def kon buñ kenn deful dara ñoom Babacar Diop ak ñeneen ñi xeexu ñoog benn benn gendarme moom moo doon jaay dafa am doole mooy tal ma tal di jaay gër yi te moom yóbbu nañ kaay ay yoonu yoon tribunal man mii mas naa nekk avocat am génne ko ci gudda gi keroog damaa dem fekk ko fa damaa ñëw pour défendre la gis procureur wax ñëw ñu bàyyi ko bu ñibbi këram waaye daa dafa naa ne daal daa am feebaru prison yaram mooy xasan pour des prison fu mu toll moom daal yi di ko jàpp ko neex ndax bës lay wut waaye bës boo xam ne boo demee ba ci biir ñe da ngay demander liberté provisoire yow kay ñeme togal rek ñeme bëss bi toogal foofu rek lu nek xam nga géeree mom du ñaan du ñaan ñek liberté provisoire mooy damay ñaan njekk damay ñaan ndimbal damay saraxu monsieur le juge dama lay saraxu nga dimbali ma ngir yalla ma génn yow géeree dina def lolu am ta guerrier guerrier day day nangu affaire bi da danaan lu man dal ba nga toog degu waye sama avocat mu ngi ñaan da ñaan lu da nañ maître tel dana ñëw ñaanal ñu yow bo dé guerrier kay bu faalé lolu comme ça yaram prison la togal fofu rek nañ bayyi nak jaxase xel yi naan giir baris deful dara nañ ko bayyi wala chrétien la dañ ko bayyi kon nañ bayyi kon jullit yi nekk prison yep lolou ay wax dof la ah mu nekkoon doomu doomu Mbàkke Mbàkke waaw yeneen Sénégal yi nekkul doomu Mbàkke Mbàkke nekk ci prison bi nag pourquoi waxuñu ñoom du ay doomu Mbàkke Mbàkke wala wala ku dul Mbàkke Mbàkke doo nekk prison ba dee jullit nga ay waxi dof la aussi nañ bàyyi jaxasala gaab buñ taal Sénégal